mbokk yeeg xarit yi ñu xëyal leen ci ajjuma ji xool dëkk bi nan la mel li ko rek moo marche bi nga xamante la en ak mouvement frappe moom la ñu woote woon euh, ci avenue la waroon tàmbalee jeexalee assemblée nationale euh, tey ji nag ñu gis ni que Nous ñu yeewoo que marche bi interdire nañ ko wante euh, lu ñu moo ay takk der lañ fi seen ñu commencé fi nga unité 26. yéen a ngi xool arrière plan bi ay euh, auto gendarmerie lu ñu dul faral di gis quand même quoi ci rawatina ci parcelle Parcelles Assainies d'habitude police lañ doon gis wante tey ji fii ay gendarmerie lañ fi gis euh, ak seeni élément ñu jéem a xool beneen bërëb mbokk yi ki bi ñu jógee fi nga xamante ni mooy parcelle Assainies ci unité vingt 26 ba fi nga xam ne fi ñu la taxaw nii mu di rond-point Cheikh Béthio foofu rek la ñu gisaat beneen dispositif sécuritaire gis ngeen sama ginnaaw ay auto gendarme lañ fi gis ay char ak ay euh, car yoo xamante ni xam naa ni ay éléments gendarmerie ñoo fa nekk donc euh, ñu jéem a rek wéyal li nga xamante ni mooy suñu yoon xool lan moo xew tamit ci yeneen gox goxaan yi Nous ngi ci avenue Cheikh Anta Diop plus précisément sur un point bi nga xamante ni le statue Cheikh Anta Diop bi euh, marche bi nga xamné mom le la FRAPP ak Yanamar waron tambali fi la waron tambalé jeexalee fi nga ni assemblée nationale tey nak bi ci si sama ginaaw yéen a koy gis tak der yi fess nañ fi euh élément yaa ngi fii ak ñi nga xamante ay auto ay auto char yo ngi fi yo xamné ay tank ndox yi ñepp nga fi donc fii la tàmbalee yàlla def na ni que euh, marche bi antuwul bàyyi nañ ko euh, renoncé nañ ko ñoom FRAPP ak waa Y'en wante boo xoolee dispositif sécuritaire bu nekk ci biir dëkk bi tey jii li ko waraloon rek moo di li nga xamante ni moo di marche bi ñu ne woon ne ñoom ñu tere leen ko walla ñu ba bañ leen tere lépp dinañ ko amal wante nag lii di kuréel bii ñu tudd jàmm Sénégal dox na ci ay jéego yu am solo moo waral ni FRAPP ak ñi nga xamante ni moo di yanamar sànq si seen i conférence de presse bi nee nañu looloo waral ñu bàyyi li nga xamante ne mooy dox ñaxtu bi ñu ne woon dinañ ko def woote nañu nag ajuma bii di ñëw dine benn rassemblement dinañ ko amal te xëy na loolu dina gën a yombal li nga xamante ni mooy liggéey takk der yi ñuy ñaax rek ñi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi ñu bàyyi leen ñu amal seen i euh, toogaayu ñaxtu à la place d'une marche donc gisuñu si benn jafe-jafe yoo xam ne dinañ ko si jànkonteel donc lii lañ leen fi indiloon ñu xawoon def benn tour rek si biir dëkk bi xool fépp foo xamante ne takk der yaa ngi fa taxaw ñu jéem leen filmel ngeen jéem a am rek benn idée si li nga xamante ni moo di sa dispositif sécuritaire bi ñu tegoon tey ji ci ajuma ji